tey ñu ngi fii ci Jumbo ñu ngi ci Jumbo Wolof wa tey ñu ngi fii ci Jumbo Wolof bokk ci région de Saint-Louis ñëwoon pour seet si teen bi nga xam ni tàmbali woon nañ ko fii ci lu yàggul falilahi alhamdu far nañu fekk sa teen bi moom daanaka mën nga wax ni ay finition moo ci des ndax ndoxoon fi te liggéey bi bare na mais alhamdulilah lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal ndax kat yàlla moom mooy dogal lu ko soob su ko neexoon gaskat bi mën na fi nekk ba ba déwén te du am ndox teen bii nag mu bokk ci teen yi nga xam ni suñu ay partenaires ñoo ko financé teen bii beneen association boo xam ñoom nekkuñ sax ci réew mi nag ñoom ñoom ña nga bitim réew ña nga France ñoom ñoom ñoo financé teen bii kon ñooñu it gàcce ngàllaama ñoom yàlla yàlla fay leen yiw te bëri lu ñu mel ni ñoom ndax bu leen sooboon ñu nekk fa ñu nekk amuñu jafe-jafe ndox waaye yàlla mi nga xam moo leen jox yëg-yëgu ne leen alal ji nga xam ne yàlla mi ngi leen ko wërsëgal jël leen ko ngeen dépassé ko si yoonu yàlla ba ñu am xemante boobu xalaat boobu noonu ba ñëw ci Sénégal rawatina ñëw ci dëkk yi nga xam ne soxla nañ ndox te xëy na mënuñu ko defal seen bopp walla mu doon ñàkk ndox bi mën a nekk njàqare si ñoom ñoom ñu ñëw ngir teggil ñoom njàqare yooyu wala ñu ñëw ngir yombalal leen yooyu. ci turu borom dëkk bi ñoo ngi wax ci kàddoom. ñoo ngi sant waa ñi ko ko ñi sabab ñëpp nag ndax ñi ko sabab li ñu sabab yiw la kon nag waa sàkku yiw ñoo ngi leen di delloo njukkal di leen ñaanal yàlla. li ñuy dugal seen loxo yal na yàlla gën ko barkeel yal na yàlla gën ko nangu jigéen ñi nag wax dëgg yàlla kontaan nañ ci liitam tam ndox ndox mi nag yàlla dogal na bi mu génnee it alhamdulilahi rabil alamina manees na ko jëfandikoo bu baax a baax dëgg la waaye naam robinet am na fi waaye robinet yi day faral di couper lu baree baree baree bare ndax it day fa day faral di seer lool kooku nag ku ko defal lii li nga ko defal dina ko gis loolu nag ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ci turu chef de village Alaaji Rawaan Fall ouvrier bi ko doon liggéey macha allah taxawul liggéey bi mën naa ni bu matee ñaari semaine ndegam mat na ko passé wu ko kooku xam nga ni pas-pas la di sant ak di gërëm rek nag di kontaan macha allah teen bi moom xéwal la loo xam ne si sa dara dem demu si dangaa jekk ba si yàgg rek ñu defal la ko fii di leen ci sant di leen ci gërëm ndax ndox moom dafa baax ndax dund bu waay di dund te ndox bokk ca yaakaar naa dund bu du mën sotti ndox ci la bokk. Donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui ici, c'est euh, le lancement des travaux ou bien la supervision des travaux du puits Safsaf Sadi et Mabrouk. Donc le puits a été financé par l'association Au Pain au Sourire. Sur place, lors de la supervision des travaux, on s'est même rendu compte que la nappe a été atteinte et l'eau aussi est très douce et agréable aussi. Et nous prions Allah de rétribuer de la meilleure des façons les généreux donateurs. Euh, nous allons revenir Inch'Allah bientôt lorsque les travaux seront achevés pour faire l'inauguration du puits euh, Saf Saf Sadi et Mabrouk. Salam alaikum.